ñi caabi féete ginnaaw itam nekk ci bërëb yarukaay yi ñu ñaanal leen yàlla génne leen fa dara bañ leen fa dugalati waaye saa su ne rek xel sunu dem ci way dawlu yi ñu leen ñaanal yàlla àtte leen ci yërmandeem jéggal leen seeni bàkkaar tàbbal leen ci àjjana yi gën a kawe ci daraje sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam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 naka noonu itam kilifa aada yi ñu nuyu leen sargal leen ñaanal leen ay réew mi ñu yenu yàlla na oyof toy ci seen bopp bépp xeetu xéewal ak i teraanga yàlla na ko yàlla sotti ci réew mi jaarale ko ci seen loxo waaye lépp loo xamante ni itam ñu ngi koy mébét yàlla na ko mu yàlla mottali ba mu dëppook yaakaar gi nga xamante ni ndaw ñi amoon nañ ko ci ñoom ba teg leen ci réew mi naka noonu itam ñu nuy képp koo xamante ni jamono bi yaa ngi ci biir Sénégal di ñu seetaan moo xam nga nekkee ci région yi moo xam nga nekkee ci diwaanu Ndakaaru ak li ko wër yëgal na ñu ngi lay bàyyi xel bu baax a baax di la ñaanal yàlla jàmm gi sax dàkk di ñaan saa su ne rek bu ñu xëyee jàkkaarloog yéen te mu doon loo xamante ni da ngeen koy tal yàlla bu kenn wéradi yàlla bu kenn yor itam ku wéradi képp koo xamante ni itam yaa ngi yëngu ci dara positivement yàlla na la ci yàlla may ndam may ji réewi Afrique yi la wala cere réewi nit ñu weex ñi la ñoom ñëpp gannaaw ba ñu leen nuyoo ngën gi nuyoo di asalaamaaleykum ci biir seen ngën gi télé di la 2STV nañu yëg ne mbégte ak bànneex lañuy àndal saa su ne di teew di ànd ak yéen ci biir seen émission kër gi ni ñu koy defee saa su ne waaye nag duma leen xañ li nga xamante ni ah, daan nañ ko am ci ñun muy bànneex Euh, dañu ko yëkkati rek jox leen ko muy ñaanal leen yàlla jàmm xéewal ak i teraanga yàlla may leen sutura euh, may leen tawféex waaye itam musiba ak balaa kasara gàtt fan ak ñaaw yàlla bu ñu ko gis seen yoon benn benn yoon nuyu sargal nag képp koo xamante ni rek jamono bi yaa ngi toog jàkkaarloog ñun di ñu seetaan delloowaat buum ca boy boy ca la ñu nekkoon démb ci lu jëm ci wàllu xale yi ak seen nekkin waaye laataa loolu rek xam ngeen ni démb am na tiis woo xamante ni dal na ci Sénégal muy génnuk àddina ki nga xamante ni euh, mooy Jules François Bertrand Bocandé mu nekkoon koo xamante ni wax dëgg yàlla ki suñuy jamono ñun dey daan nañu bégal certes nag toog ba jamono bi souvent ni ñu koy faral di waxee rek sénégalais bala laa xam nga génn àddina bala laa defali seede wala mu di la jéem a taxawu wala taxaw sa njaboot day fekk nga génn àddina naam loolu duñ ca fekk waaye nag bu fekkente ni nit ki bokk na ci yow donte benn fan sax bégal na la ko benn fan nga bàyyi ko xel bu génnee àddina jàddu na nga jaale ko ay mbokkam jaale ko ay xaritam ak ay jegeñaaleem waaye itam fi nga xamante ni fa la jëm itam gënal ko fi mu bàyyi ko lépp loo xamante ni xeetu bàkkaar la ak yeneen ak yeneen yàlla rek moo xam yàlla na ko yàlla jéggal te tàbbal ko ci àjjana yi gën a kawe ci daraje sangu-sang yépp di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tout cas ñu ngi fàttaliku jamonoy keer 86 ñu ngi daan jàngi école bu ñu wàccee dem ci taatu paranteer yi ci télé yi ñu gën a jege Euh, toog fa di seetaan li nga xamante ni mooy euh, euh, Coupe d'Afrique boobule mu nekkoon ci koo xamante ni nag ku xarañoon loolu la ku ñu ràññee woon la kon bu ñu demee ba jamono bi mu ñàkk bakkenam ci ginnaaw juróom fukki atam ak ñeent jaadu na ñëpp bàyyi ko xel waaye itam ñëpp ñaanal ko yàlla te xam ni doomu Sénégal moo génn àddina ku bëgg Sénégal moo génn àddina ku bëgg ndamal Sénégal moo génn àddina kon dañuy bokk ak ay mbokkam naqar woowu actrice tiis woowu mu ne mel ni nag kàddu la goo xamante ni du man rek waaye équipe bu 2STV yëpp bu ma ko waxee la dooree ca njiit la ba ci ki gën a suufe ñoom ñëpp ñu ngi ànd di naqarlu génnuk àddina ki nga xamante ni mooy Jules François bokkande di ñaan rek yàlla na ko yàlla xare àjjana yëgg na kawe ñu delluwaat nag euh, ci li nga xamante ni ca la ñu nekkoon muy rek euh, lu jëm ci wàllu euh, xale boobu boobule man nag dama dama dama dama yéemu ci yàlla waaye laataa may ñëw ci li nga xamante ni moo ma yéem dinañ àndandoo ak wariji kii di wan kaleel nu ñu élément bi su ko defee ñu seetaan ko dellu si àndaat ak yéen waaye daal da jamono day dox ngay dox di ànd ak moom te léeg olof Njaay léeg ñu yëkkati tem boo xamante ni day da ngay gis ñu ne la kat ah diw dey sant naa ko ndax nag ba nga xamante ni tem ba dem na ci télévision ba ci laa gindiku ci laa delloosiwaat sama xel xam ne am na loo xamante ni mi ngi may xaar ci sama diggante ak sama borom te ni ñu koy faral di déggee saa su ne tuub du wees waaye léeg nag nga yëkkati tem gis ca leneen loo xamante ni bokkewul ak la nga ca doon xaare loolu lan la dañuy daal di ànd ak wan ñu seetaan élément bi ba noppi du ñu jóg ci di ko wax nag euh, kookee nga xamante ni sunu papa kilifa la xëy na peut-être am na loo xamante ni erreur la wala jamono njatt na ko lu mu mënti doon itam su ko waxul kii di ak njabootam duñu ko xam ba tax na rek kookee nga xamante ni mooy góor gi Amadou Deme euh, di sunu baay di bàyyi xale bii nga xamante ni wanoon nañ leen fotom démb te nit ñëpp xam ko xam xale bi wax kan la euh, jot na pour daal ñu seet ñu defaree diggante bi waaye daal xuppaate ak ŋàññaate ak lu tax nga dem ci télé ba jamono bii ñu toll dañ koo wees te 92 euh, ak léegi dafa yàgg te nag bu fekkente ni xelu defar mi ngi woon ci nit ñi rek Euh, boobaak léegi dina defaru bi nga xamante ni yegsi na ci télévision bi itam euh, def def ko tey jii nekk ci jàmm nekk ci salaam jéem a récupérer xale bi moo ëpp solo woote beeg xuppaate beeg ñoom seen ak yaa dem ca télé ba ñu di ñu ŋàññulu déedéet ŋàññuñu kenn waaye exemple la ñuy joxe ci yeneen baay yi nga xamante ni ñu ngi émigré ji ci réewi Afrique yi ndax bari na fa loo xamante ni lu mel ni daf fay xew li ñuy def mooy nañu dem ànd ji ak wan ñu dégtal leen seen élément ngeen seetaan ko ñu dellu si wat àndaat ak yéen ci 88 628 69 69 wala 00 221 33 841 09 31 comme ni ñu amee habitude di ko ànd ak yéen wan may ma élément bi ma seetaan ko ñu dellu si